ci jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di gërëm Abdoulaye Diallo Modou Diouf ak euh, abdu Top ak euh, Fallou tey ñu ñëw <coughs> ci trent minutes crono comme ni ñuy tàmm di leen ko defale ñu dellu si fas yéene waxtaani actualité bi bokk na ci li ci gën a fes di fàttali ni micro bi Omar Bun Khattab Gueye moo ci nekk dinañ wax ci kàddu yi Barthélémy Dias yi ma tuddee ay un homme dangereux boo xam ne dañ ko war a arrêté limité ko yamale ko te loolu dinañ ci dikk parce que man je pense que Barthélemy ku ñu war a yamale la parce que wolof def ne buur ne buur saay na ko xamul buur saay na ñun la buur deene waaye ko xamul buur deene ñu wax la leneen kon Barth il faut que ñu wax ko leneen dinañ dellusiwaat ci dakaar Arena beeg Sonko jàngat yi ñu ci am. mais aussi dinañ wax sur le cas Déthié ak yeneen yoo xam ne bu ci xajee ci trente minutes ñu fase na ci wax pourquoi ñu njëkkee Barthélemy Diaz parce que démb dañ ko déglu ci Maïmouna Ndour Faye ginnaaw saagaam yi mu saaga woon ca Tamba pare yépp nit ñi naan dafa juum ak fa taal micro yi yàgg naa saaga Barth bu saagaa moo ko tey bu saagaa loolu la gëm parce que loolu la xam Barth loolu la xam waaye saaga moom comme li ñuy faral di wax rek li ngay sànni la muy dellu siwaat ku respecté wul nit ñi ngay waxal mënoo respecté sa bopp kon boo saagaa dafa mel sax sa bopp nga saaga yemuñu ci loolu bu ñëwee toog ci conférence de presse di wax yu ñàkk fayda yoo xam ne kenn laaju ko ko ay wax yu ñàkk teggin maanaam moom daf pour moom dafa rusa am teggin dafa rusa wax lu baax pour moom il faut que mu ngan ngandulu bandi bandilu dafa dafa xamul ni politiku bandi bandilu dafa xewi politiku bandi bandilu seddul ñiy bandi lu ci géew politique bi depuis Diomaye ñëw nit ñi benn bët la ñu xool mooy waa ji am na diine waa ji dal na waa ji teey na waa ji modeste na waa ji wàccee na boppam sénégalais yi foofu lañuy ñuy xoolee nit nga dem Dakar Arena nga gis Sonko sol semise bu simple ñu taxaw maanaam beneen image yu Sénégal lañu bëgg a jox bu dul nii bu njëkk ba mais Barthélemy bi mu yor dafa xewi politique gu bandi bandilu dafa xewi def li ngay def ñëw toog xamoo foo nekk wax lu la neex saaga ki la neex xas li la neex loo wax génn ci bu la neexee tey nga ni waa impôt domaine ENA ñoo fa jàngee xamuñu dara te yow yow ñi naan ENA ñi jor suñu administration xamuñu dara ndax Sonko ak Diomaye dégguñu tubaab yow lan nga jàng lan nga xam boo waxee mën a dama nàmp tubaab nit ki lu mu nàmp rek lay géex moo tax heure boo waxee saaga il est temps que Barthélémy Dias respecte les Sénégalais te xam ne si réew mi ñi ko sos duñu tudd jéeri duñu mbadantaan ci réew mi la ñu bokk ci réew mi la ñu juddoo Gaston Meng ñu ngi lay ñaanal Gaston Meng ñu ngi koy ñaanal di ko jéggalu parce que waxoon na fi ku ne ŋàbb ko mais Gaston day dem ba am raison ci ñun waxoon na ci Ousmane Sonko ci kanamu Babacar Fall mais lu mu waxoon dëgg la. li mu waxoon ci barte tey ji histoire day jox raison Gaston Mbengue Barth waruloon nekk meeru Dakar day jox raison Fadilou Keita mi ne woon Sonko Barth waruñu ko investir à Dakar day jox raison Moustapha Sarr mi waxoon ak Sonko na ko Barth waruñu ko investir à Dakar parce que il est insaisissable bay na Gueye ñu ngi lay nuyu danga nga am raison Dakar méritewul am maire bu mel ne Barthélemy Diaz pourtant waa Benno Bokk Yaakaar waxoon nañu ko Abdoulaye Diouf Sarr waxoon nañu ko mais limu ñu doon jaay ak li mu doon diwa xeeñu ko lu tax ma ñëw nii ci Barth ci kanam may mën a fay démb dama dégg Barth wax kàddu yoo xam ne ku ko wax ci penc dal la war a rétablir di nga presse sunu presse bi bi ko waxee ci mbiri voile traité nañ ko lu ne dëbb nañ ko ci seytaane sos naa fekk chroniqueur lépp mais tey ji kàddu yi bari yëkkati démb di utilise eglise bi ak jàngu bi di ko politiquer kàddu yooyu ku mu ci réew mi da ko waroon a ñaawlu danoo waroon a ñaawlu kàddu yi Barthélémy jaas yooyu parce que irresponsabilité dëgg la ci wane dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg église bi li leen naqadi di leen ko fajal seen bopp lan leen def église bi danoo mës a saaga église bi Sénégal dañ ne dañ leen mës a wax naka su dul noonu Sonko da leen mës a xas lu dul ni li constitution bi wax te ñëpp gëm ko muy dëgg mooy école yi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn werul beddi kiy takku croix kenn warul bedd kii muuru te looloy dëgg parce que kenn mun kan nangu une minorité di imposé sa loi ji nga bu nekkee ci réew nekk dans une république ji nga constitution bi na muy doxee nan ko respecté ji nga bart mi bu bàyyi mënee nekk politicien ci réew mi ba doon fi li fi doon jaar ENA di li ni li njëkkewul tey ci nguuru Abdoulaye Wade ci nguuru Abdoulaye Wade dàq nañ fi Jean Paul Diaz mu dem dugg cathédrale du ko da ko doon politique mais juralu ko dara kon Barth paroisse bi muy pressé baaxul dinga réew mi Barthélémy Dias mënu ko taal mënu ko xaaj mënu ko tas di nga booy politique tegal ay argument yu leer tegal programme bu ñëpp mën a dégg tegal un projet bu ñëpp mën a dégg mais mënoo jóge fële ñëw bëgg a dunduloo sénégalais yi loo xam ne ñun mosuñu ko nangoo dund jël église bu ko utiliser naan dina régler seen compte ak Ousmane Sonko lan la Ousmane Sonko def église bi ku ko xam nañu ko wax lu dul ni wax ñu respecter la constitution un Barthélemy Dias sa permet ñoo toog di utiliser église bi ci yu mel noonu képp ku bëgg a jàmm ci réew mi bëgg dëgg da ngay yemale Barthélemy Dias na ko Barth ne ko ci dëgg jël sa émission tooj vue yi te fa di gëmloo sa bopp ni Sénégal yëpp ñu ngi lay seetaan fekk seetaanul la parce que xam na nan lay dem parce bi émission bi jeexee ni vue yi boo ko compare ak Amadou Ba bi nekkoon Faram Facce da ngay xam ne Bart day sóob day mën nga politique sa politique boo saagaa sax sa bopp nga saaga man saaga ku ko def ci penc pour man sa bopp nga saaga parce que nit ki lu mu ŋànk lay géex te réew mi nag booy Pastef la ñuy nax de. mais ñun am la lu fekkee fekk nañ Jean Paul Diaz ci campagne électorale ab oto fir fi ay xale ray leen fekk nañ ko fi ci réew mi on n'a pas besoin de raconter lan moo xewoon fekk nañ fi IPRES bi ñu fi falee Jean Paul Diaz nan la demee woon di xeebi salaire rek di xeebi ay avantages fii la ñu fekk def nañ ko fi ministre de la ville fii la fekk ñoo toog gënoon nit ñi gënoo leen dara église bi ngay mbubboo ku yaradiku comme Barthélémy Dias amu ci demal xool la ministre de l'intérieur nga xool ay Théodore Chérif Monteil ay nit ñu jàng xam mën lépp nekk ci église bi yaru église bi ñi ci ne danoo yaru meluñu comme mi faut sérieux man am na yoo xam ne duma ko bal kenn kii politique diine di politiquer xeet di politiquer waaso di politiquer tarixa man du ma ko baal kenn parce que ñun république moo ñu fi teg république moo tax mu nekk maire république moo tax mu nekk maire mais tey jii bu na woon rek dan naan buur ak bummi ñu dem ci royaume wala royauté Barthélemy Dias du doon dara ci réew mi wante dëgg république boobu nag permettre ko mu mën a nekk maire dakaar république boobu lañu war a sàmmal bu bëggee dara ci réew mi pour waxee nga ni da ngay tëkkuwaate da ngay raayaate ministre de l'intérieur génne na ab mesure ci autorisation de port d'armes yi le 30 demal Tamba yor sa arme di nga nguur gi dañoo war a am fulla ak fayda di nga élection yi Barthélémy waru ci woon bokk loolaa laa gëm waru ci woon bokk mais bëgg bañ ku leen a ci nga Sonko ak Jomaay bis boo leen ni bañ ku leen sëkk ci réew mi doo leen yor réew mi di nga Macky Sall li ko yoon mayoon ci yéen yëpp da ko def yéen li leen yoon may da leen ko def ku jéggi barrières yi ñu dellool sa place la Mamadou Jo doon wax ku fi mbaam lu ñu lawbe lawbelu sa kaw looluy dëgg Bart amul mbooloo ñett nit duñ ko topp yomb na nga loué say nervi jox leen ay ngannaay jël ay bandi salté fu ne nga jëlee leen ko ci Ndakaar foo jëm jëm ak ñoom mais Barthélemy Dias kese jug jug moom jug dem di def defi politique musu ko ñeme di xuus ci kanamu mbooloo fu mu dem rek ñi muy àndal seetlu ñi muy àndal ñun xam na ni muy dem ñun ay gënoonoo doon booy Dakar mais nag ñun nàmpuñu saaga bay yàbbi ay saaga ñun bokkuñu saagakat yi même buñ ko doon def ci suuf la nga koy def mais publiquement on la fera pas parce que yarewuñu noonu kon ku mel ne Bart il faut ñu ko teg ci buñ jógee ci lii la ville de Dakar mais gars yi nañ ko xool parce que dañ naan am na cinquantaine de milliards yoo xam ne moom lay am budget at mu ne ville de Dakar institution la doole bi mu am mais milliare du milliard u Barthélemy Diaz mais milliard u Ndakaaru la war a xool qu'est-ce qui se passe à Dakar alal ji Barthélemy yor fa la ko jële parce que bu doon salaire kese mënul may nit ñaar dërëm parce que xam nañ comment ça se bu dee ngay politique politikal def na la tëdd ñun suñu yoon nekku ji. campagnal gañal suñu yoon nekku ci mais nag daa am yoo ne boo ci bëggee dugg ñun ñu jug église bi doo ko politiquer mukk tréem bi doo ko tas ñun ñi suñ borom may kàddu ñuy toog même bu dee ñaari nit ñu ñuy suivre dinañ ci wax suñu xalaat te ji presse bi nañ jël seen responsabilité di wax ci yii yii mooy tas réew mooy yàq réew ñi jël tarixa wala ñi jël diine di ko politiquer wala ñuy jël xeet di ko politiquer nan ko bàyyi c'est des discours dangereux. Mmh. ay discours la yu dangereux yoo xam ne dañ koy tenir te ñi ngi jëm ci campagne électorale Barthélemy ñu jàpp Bougane moom nee na autorisé na boppam lépp. mu ne la 30 Bougane war na xoolaat boppam yow yaay sun tëdd liste ji nga moom bi fi nga koy woo ci mbiri Ndiaga Diouf Ousmane Sonko da daan taxaw ci kanam jëli ko këram gunge ko bàyyi bañ jàpp Bougane nga naan la 30 fekk la 30 lu ne xew na fi xeex ak joxe ñoo yem ku koy waaj doo ko def Bart dagal la du xeex day nappe rek day nappe rek léegi Bart léegi Bougane day toog di xaar ba la 30 moom tàngoor wa paquetage ba xat-xatloo bi. mu ne la 30 Bougane bu génnee na defar na yeewi parce que moom mii seq naa fi ak lu ne Bougane Gueye boobu maa ngi Mermoz gii ci affaire panneau yeeg mbirim seen fetal génn fa lu ne génn fa toog na fi ne Bougane du teg du mës doon dara ci politique il jette son argent par la fenêtre yooyu fi la fekk parce que ñi ngi ci presse bi yàgg nañ fekkee topp xalifa di ko dugal di ko dugal ba mu dugg kaso génn jariñoo ko tus nangu mouvement am tête de liste bi ni mu demee yépp xam nan ko quelqu'un boo xam ne mosul nekk candidat dans une élection présidentielle ñu jël jiital ko ci listu waa sàmm sunu kàddu ana ay nitu xalifa ville de Dakar bi nga fi ñëwee ñoom Aminata Diallo ñoom ñëpp ñi doon ànd xalifa fële na leen sànni soo war ni fële la leen sànni dem créer seen nit bopp créer sa mouvement bokk mais yooyu du ci dugg parce que bu ko xalifa nangoo dagan na mag lu mu nangu ñu teg ko ko na tey jii ñi am fulla ci taxaw dakaar yëpp dem nañ seen yoon parce xam nañ kan mooy Barth c'est un homme dangereux on doit l'arrêter daam yoo xam ne waru ci dugg avec son expérience ak fi mu jaar ci politique yëpp même bu amul xam-xam jàngul comme ni ko gars di waxee mais xanaa am na expérience politique parce que koo xam ne ci keppaaru Ousmane Tanor Dieng nga màggee keppaaru Khalifa Sall te Ousmane Tanor booy wax teggin ba egg ci Ousmane taxaw booy wax teggin ba egg ci taxaw xalifa li mu ñàkk ci politique yëpp Barth moo ko xañ parce que xalifa son homme sympa aimable courtois doo gis nit ku bañ xalifa mais des fois ki ngay àndal dina tax ñu jëpp la bañ la. kon propos yi mu wax di utiliser eglise bi ak jàngu bi propos yooyu da ko war a retirer mais aussi Maïmouna Ndour Faye jàngaluma ko métier am am na yoo xam ne bu ko nit di wax en direct on da koy couper da koy couper loolu nag waa sénéral ñoo ci war a jël seeni responsabilité parce que loolu ci seen prérogative la bokk y a des choses qui ne doivent pas se passer warul am ñoom war mais bu buñ fi nekkee di lewet lewetlu naan noo Babacar Diagne defoon na fi lii eh, Macky Sall defoon na fi lii Moussa Bokar defoon na fi lii barke Mouhamed laa la wax yenn politiciens ak yenn presse yi ak yenn chroniqueur dinañ taal réew mi fi laa la ko wax parce que bu la falee ñaar rek moo tax ñu fal la ngay jël décision ak ngay sanctionné ji nga ñuul ñun ñu ëpp yërmande sunu borom yàlla nanu politique am liberté mais dans la responsabilité dans la responsabilité mais ni koy defee actuellement ci réew mi ak yenn wax yi ñu wax li Bougane def mais li Barth wax moo gën dangereux foofu parce qu'il est maire de Dakar qu'il est ceci qu'il est loolu il faut ñu bàyyi ci xel loolu nag mooy indi ñuy wax ci le cas Déthié Fall Déthié ni mu def noonu la wala du noonu ku ne am nga ci xalaat timing bi mu ko defee ak waxtu wi ku ne am na ci xalaat mais ku mel ne Barthélemy jaar tax na Déthié dellu ci Sonko parce que lii Barthélemy ni muy doxalee Déthié ak dayo bu mu am waru warul mën a topp ci ginnaaw Barthélemy di campagne koo xam ne xas saaga xaxar wax lu la neex def li la neex loolu du Déthié Fall te tubaab nee ne ce qui se ressemble ça semble wan ma sa xarit mu wax la ki nga doon loolu tax wàññeeku ca ba mu jotee parce que genre discours yi ñoom baax di tenir ci xajul foofu am na yoo xam ne bu ko xel nangoo sa ngor da koy bañ da koy bañ ku mel na moom te bari na ci ñi nekk ci sàmm sunu kàddu li Barth di wax ni neexu leen li Barth di wax ni ànduñu ci parce que doyadi ak manquement yi am ci kàddu yi un leader kilifa du waxee noonu te loolu lu ñu mën a joxe exemple la ci Ousmane Sonko bi mu demee ba nekkatul candidat bu ko neexoon jël koo xam ne Casamance la bokk mu def candidat mais dafa jëli jomaay mi dëkk njaga ñaaw ji boo xoolee ci directoire Pastef Fadilou Keita du Casamance nga dem Mertal du Casamance keneen ak keneen biram Souleye El Hadj Malick Ndiaye keneen keneen keneen keneen parce que am na looy bëgg invité am nga looy bañ fu la ko dëkkal parce que le sectarisme baaxul par parloo baaxul ñun ñii ngay gis comme ni am na lu mu gëm mais bu xase ba toog ci média day responsable li mu gëm mu jël ko teg ko fële pour mën a wax ak ñëpp loola dëcce dellu si bi mu dellu si lu réaliste la te lu ñu normal la politiquement benn pour raxas deram parce que am na lu fi xewoon 2022 ci législative yi ban yàqe liste ba dëcce ba léegi loolu cas de conscience la moment bi rek la am pour defaru pour wane ni la woon du noonu te Déthié Fall mi xam ne yéene bi Ousmane Sonko am ci moom élection présidentielle yi ñu weesu bu noon Jomaay du nekk candidat Habib Sy du ko nekk Cheikh Tidiane Dièye du ko nekk Sonko du ko nekk man gëm naa ni Sonko dina joxoñ Déthié na ko demal yaay suñ candidat parce que Sonko waxoon na mu neex mu naq di dinañ am candidat kon Déthié mii bokkoon na ci ay plan même bu ko waxul parce que yéene na ko ku la yéene nag njiitum réew desalatu la dara am na sax ñu doon wax naan parrainage yu ñoom Déthié sax est-ce que du sonk am na ñu ko doon wax mais yooyu doo doo ci mën a teg loxo te wolof yi dañ ne ñi mënta tàqalikoo dañuy ànd ji nga Déthié ji nga bëy bu ànd la ki bëy rek ànd ak cere te Déthié du dem nag ñu koy cere coalition boo xam ne ñun la El li Malick Gakou ma nga ca ma nga woon yeew yi ñun la Boubacar Camara ma nga woon jot na ñu ne woon kii Abdourahmane Diouf yéen a bokkoon réew mi nga nekkoon kilifaam yow Déthié Abdourahmane Diouf dem ba mën a tekki dara ci nguur Déthié nga toog ci banc bi di xaar te Déthié li mu def mooy choix bu gën a judicieux parce que partem di PRP li mu liggéey ci projet bi ak li mu ci daj ba kaso fekk ko ci moom Déthié Fall dem ba partem nar a tas parce que choix bi mu def ne day dem. ci ñoom Barthélemy Dias choix boobu moo ko jural PRP ñoom Abdou Aziz Mbodj ñoom ñëpp di dem man PRP am na ñu ma ci xam mais kenn desatu fa woon ñun le vieux bi ànd ak euh, Déthié mais ñëw na fii ñu invité ko mun na ñun suñ milieu naturel bul mën a évoluer mooy ci yeewi askan wi ñun Sonko lañu àndal ñu dem ba benn jamono loolu soppeeku ay nit dox ci diggante bi parce que Sonko neexul woon a jot neexul woon a gis dëcc dem fari ci leneen mais fa mu dem la mu gis xamu ko parce que fa mu jëm fa mu dem bu fa fekkoon jàmm fekk fa ay nit yu civilisé xam àddina peut-être mun na wax ak ñoom fekk fa Barthélemy miy saaga fekk fa Pape Djibi muy wax lu amul fekk fa Bougane miy xeex mu ne nag fii bu ma deful nànk ñu boole maag cere ji lekk. ma xaar ma dem ànd ak bëy yi lu ma am jël pour man looloo explique choix bii parce que choix bee ne mënoon na ca dem nekk député mais la mu cay ñàkkee moo ëpp mooy dina ñàkk partem ñàkk perpe mais tamit ñàkk Sonko ñàkk Jomaay te Sonko maanaam Idrissa Seck dafa dem ànd ak Macky Sall de ca bàyyi ko tey ñoom mi ak sàmm sa kàddu dem coaliser à Dakar ak sàmm ak ñoom Macky Sall Déthié li mu xeex vingt ans Barth ñoom mi li mu yàbb vingt ans ñoom Barthélemy bëgg ko ko loo li mu doon reproché Idrissa Seck mu bëgg ko dem def mooy ànd ak Macky Sall bu demoon fee li mu doon bañal sa Seck loolu lay nangul kon di nga jën wala fi nee na du dund fudul ci géej te pour man géej gi mooy Pastef ci moom mooy Pastef ci moom ñu naan nag ay Jibril Ngom ay kay Jibril Ngom sàcc ay kayitu jàmmul mandataire jàmm far Farba Ngom ànd ak moom photo ak moom jox xaalis bu bari jox ko poste de responsabilité décc lu ñu ko defal ak fu ñu ko demal day dox ba gis ni fa mu jëm lëndëm na mu wàññeeku même booy dox sax ci guddi ba gis fa nga jëm lëndëm na loo wàññeeku ñaata nit ñoo dem ci ab entreprise signé contrat def fa weer jóge fa parce que gis ñu lu xam. di nga un bon politicien dafa war a xam fa la nawet bi toll mook mook un bon paysan ñoo yam ak un bon cultivateur dafa war a xam bu nawet bi fa la toll bu bu bu xéenee mu xam ne xéen na bii sëwét mu xam ne sëwét na lenn rek laay reproché Déthié te di ko reproché su nitu politique yëpp mooy ji nga nan respecté seen base base politique bi ñuy liggéeyal pour man Déthié bi muy def choix bi consulté wul base am parce que ay Abdou Aziz Mbodj yëpp boo gisee démissionné def Pastef parce que ànduñu ci ji nga ñi nga àndal say nawle lan ci politique dogal booy jël ji nga da nga leen ci war a tàggu waxtaan ci ak ñoom le choix de la majorité mooy choix bi gën mais un leader doo jug rek sur un coup de tête rek nga jël benn décision fii rek lay mujj yàkkamti ak gaaw wala fi ni nen bis bu nu seeyee doom ji rëccu rek lay tudd loolu laa wax ci kaw Déthié Fall te wax ni nag la xewoon ca arena lay tëje mooy ndaje mi ñu bari ñu ngi ciy wax mais cooli cooy mooy le pari de la mobilisation koroog waxoon naa ko pari risqué ou osé mais tey pari gañaa laay wax parce que nag nga jàpp bis mercredi jeudi vendredi samedi nga ni kii ñëw na dagg tikki indaale dara ñu ñëw daje dajale cinq cent millions ci quinze mille places yoo xam ne am na ñu nekkoon ci biti am na ñu nekkoon ci yoon wi egguñu loolu c'est du jamais vu moo tax tubaab yi africains yi pays Afrique yi bari ñoom da leen yéem nan la nit mën a réussir leen ni quelqu'un qui est au pouvoir yor nguur yor lépp pare ci di laaj askan wi xaalis ñu koy jox loolu moom ku mu yéemul mais loolu lépp xamul ko indi mooy jub ndaxte ñiy joxe xam nañ li ñuy joxe fu mu jëm bu leen leeroon buñ ko joxee ñu lekk ko duñ ko jox ak wóolu nit fexe ba am crédibilité moo indi loolu kon pari bi lu ñu réussir la mais aussi mu demoon benn rencontre politique boo xam ne ay niti politique ñoo daje man damay wax li ma jàngat ci ndaje mi mooy Sonko bi muy ñëw otoom la indi indi ay garde corps am yaka daan garde bi muy nekk opposition daraay nguur laalu ko loolu lu am solo la beneen bi ci topp man nag damay seetlu ma ni la àndal ma gis Fadilou Keita dar Sonko ma ni kii fàtteegul ay nitam de parce que ñun fii xam na ni mbir yu doxee. ma gis Waly Diouf Bodian mi yoroon sécurité Sonko nekk directeur port ma gis ko ci ginnaawam gis ña ma daan gis ñépp ci jamonoy opposition loolu dalal sama xel parce que ñun fii nguur dañuy soppi nguur dañuy sorale ak sunuy nit nguur dañuy ber nguur dalay isole ma ni bukki bi mattoon Sonko mattul ñeneen ñi nga gis mu delloo lépp jeunes yi indi Jean Michel indi mais ma am beneen seetlu bu ma def ci teewaayu Sonko mooy def li am ci parti politique yi amul ci Sonko ak bu hymne national lan teg drapeau Sénégal moo fa doon flotté mais la guerre des pancartes mobilisation ci politique yàgg na fi. mais bu doon yeneen parti El Hadj Malick day jóge fee waa Linguère naan ñun El Hadj Malick lañ àndal waa Thiès na Birame Souleye Amadou Ba waa Thiès waa Touba ne Cheikh Bara Ndiaye nga dem maire Tall ngo fële mbuur nga ñëw Kër Massar ñun la benn Pa Ousmane Kébé ku ne di wane sa bopp wala Bilal jaata wala Waly Diouf Bodian wala keneen mais ñëpp ànd di déglu benn nit jël lépp jox ko jiital réew mi. nan ko doon defee ci opposition mooy drapeau Sénégal hymne national bu Sénégal beneen bi ci topp te ma koy rafetlu mooy exemple bii ko jël lu war a continuer la mooy campagne électorale ak ay rencontre politique daa da daan tax ñuy occuper la voie publique xam ne occupation de la voie publique délit la yoon da koy aye mais politiciens yu koy aye ñoom ñoo koy def moo tax pour respecter loi bi day jafe tey ji Sénégal war nañ mën a defar ay salle yu mel ne Dakar Arena comme kenn basketu fa ak feneen ak feneen bu campagne jotee ñu koy def comme aux États-Unis naam plein dina am parce que am na ay campagne plein mais du bari te du yàq la circulation des biens et des personnes ñu fexe ba meeting yi di am ci biir salle xam ne nag salle day suul ndaanaan parce que boo jëlee euh, saalu 15000 places. wala 1500 places grand théâtre te feesaloo ko mën na doon loo xam ne da suul loolu mooy jàngat bi ma def ci arena bi te ñu bari war ci roy parce que arena bi dafa laaj ay jàngat yu bari ak Jean Michel Sène bi mu teg ci kanamu gars yi pour tontu leen ni bu dee da ngeen politique dossier Azer tontu politique bi mooy moom laa àndal. beneen bi si bi may tëjee laay mooy maire bi ñu indi teg ko ci jàkk ne dafa étouffé Sonko wàcc yéegaat man du maire bi wàcc moom ma intéressé wala leneen ak leneen mais la fait ko Sonko focus seetlu woo bi mu joxe loxo maire bi ba yéegaat waxaatul ci maire bi fa mu yamoon ci wax ji foofu la continuer moo lay wan ne kii xelam lay demee émotion di ko yóbbaale ci dara te bu doon keneen dafay bàyyi wax ji di wax waxu maire bi loolu ça montre degré bi waa ji nekkee ni mu focusé ci li muy wax ak fi mu jëm loolu am importance la ci mbir kon mi ngi noonu mu doonoon rek jàngat boo xam ne da koy def a chaque fois ci actualité bi alxamis du ne euh, kon focus wala 30 minutes chrono di gërëm Abdoulaye Diallo Abdou topp ak El Hadji Modou Diouf di jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak Omar Bun Xattaab Gueye mu nekkoon ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat ci beneen 30 minutes chrono.